الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله رب الإسلام جميعا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi dénk sunu bopp di leen dénk ragal yàlla ak topp yàlla wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haysu la yahtasib ku ragal yàlla jafe-jafe boo am yàlla génne la ci wa man yattaqillaa yaj'al lahu min amrihi yusra ku ragal yàlla yàlla yombal mbiram yépp ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا كرغل يالا يالا جيغل لا ساي بكار واي دادي ماغال ساي تيابا ginaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba tey mooy hal taalamuuna ma hiya zulumaat al ashara hal taalamuuna ma hiya zulumaat al ashara ci sunu dund dafa am ay lëndëm yu nu topp yoo xam ne lëndëm yooyu buñ ci génnulee bu nu génnee àdduna dajeeg sunu boroom daf ñuy dugal safara lëndëm yooyu fukk la ci yenn yi fukki lëndëm la moo tax alquranul karim sunu boroom subhanahu wa taala fépp fu muy wax lëndëm ci alquran zulumaat lay wax ndax dafa bëri kenn mënu koo lim waaye suy wax leer benn dong lay wax te lëndëm yooyu dañ ko war a xam ndax ci sunu dund la nekk def ñu topp te suñ ci génnulee day yàq sunu àdduna waaye day yàq sunu àllaaxira waaye sunu borom subhaanahu wa taala dimbali nañu lëndëm yooyu li ñuy bari yëpp benn lëndëm bu ci nekk yàlla teg na benn lumière benn lampe ci kanamam bu lay leeral pour nga war a génn ci lëndëm googu fa zunub zulma ay bakkaar yu bari lëndëm la doomu aadama day dugg ci ay bakkaar ba bakkaar yi peek ko wër ko yàq dundam yàq àllaaxiram waaye sunu borom mooy ku bëri yërmande bàkkaar yooyu li ñuy bëri ba nekk ci yow lëndëm sunu borom def na benn lampe boo xam ne moom moo lay leeral ba lëndëm yooyu nga génn ci bi mu defee zulumaat mu nekk lëndëm wa jaala siraajuha at tawba bàkkaar yooyu li muy bëri ci yow li muy bëri ci man li muy bëri ci ñun yëpp sunu borom mooy koo xam ne indi nañu làmp bu ñu génnee ci bàkkaar yooyu mooy lan mooy tuub nit lu bàkkaaram bëri bëri bëri su tuubee jéggulu yàlla tabaraka wa taala daa di dëggal sarti tuub yàlla baal ko bàkkaar yi kon lëndëm yooyu mbokki jullit yi li ñuy bari bari yëpp sunu borom ci mbaaxam indil nañu làmp buñ ciy génne ay bàkkaar lëndëm la yàlla tegal ñu ci kanamam tuub mu nekk ab làmp bu koy leeral soo tuubee génn ci bàkkaar yi borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum e yéen ñi gëm yàlla ya ayuha alladina amanu nidaun min arrahmani arrahim ila ibadi sunu borom mooy woote te jàpp naa ne sunu borom bu nu woowee war nanu koo déglu te war nanu koo wuyu ndax tey sunu kilifa àdduna yii nu nekkal jóge ci président tey bu nu woowoon ne bu ngeen julli jumaa ba pare na ngeen ñëw añ seeg man danañ wuy ji wala duñu wuy ji wallahi danañ wuy ji rawatina nag ñu tagal ñu fi ay kaar ne bu ngeen paree dugg leen kon ñëpp danañ dugg kenn du tàggoo doo wax sax sa waa kër am na fu may dem fir ngay dem wuy ji ndax dafa am loo fa yaakaar allahu akbar rawatina borom bi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu woonu mu ne ñu yaa ayyuha allazina amanu e yéen ñi ma gëm yéen a wax da ngeen maa gëm kon wuyu leen ma lu nu yàlla di doya mu ne tuubu ila allah tuub leen jëm ci yàlla lan mooy tawba mooy bàyyi bakkaar yi génn leen ci bakkaar yi bàyyi leen bakkaar yi li ma neexul bàyyi leen ko li ma bëggul sori leen ko loolu mooy at tawba tuub dellu ci yàlla tabaraka wa taala tawbatan nasuux tuub bu sell borom bi tabaraka wa taala borom xam-xam yi dañuy leeral ne tuub bu sell mooy yenn saa yi nit da damay tuub soo bëggee xam tuub boobu sell na wala sellul seetal ndax dëppoo na ak charte yi lan mooy tuub bu sell tuub bu yàlla nangu mooy tey nga simmi woon say dàll di dox ci sa biir kër yëgoo tinoo ba nga dëgg ci xalu safara allahu akbar ndax boo ko dëggee da ngay bloqué tànk bi bàyyi ko foofu ci kaw xal bi tontu bi mooy déedéet da ngay tëb tey boo tëbee di nga def effort ba doo ko ci tegaat wala loolu mooy tuub bu sell bi nga defee bàkkaar bi góor-góorlu nga ci sa dund ba bàkkaar bi defaatuloo ko loolu mooy at tawbatun nasuux yàlla nee na bu ngeen ko defee allahu akbar suñ borom du nit su ngeen tuubee tuub boobu ngeen bàyyi bakkaar yi yu kaffir ankum sayyi'aatikum bakkaar yi ngeen defoon sax dama koy defaat mu nekk ay tiyaaba defal leen ko te ay bakkaar la woon mu ne ma soppi ko wa yu kaffir ankum sayyi'aatikum bakkaar yooyu dama koy soppi ci yéen mu nekk ay tiyaaba du ma yem ci loolu wa yudxilukum jannatin tajri min tahtiha al anhaar bu ngeen dee dajeeg man mu dugal leen ci sama këru taraanga gu dudd aljanna kon bakkaar lëndëm la lamp bu ciy génne ab doomu aadama mooy tuub ixwatal iman al qabru zulma bàmmeel lëndëm la allahu akbar dara gënul lëndëm bàmmeel da ngay nekk sa biir néeg néeg bi 3 mètres la 3 mètres carré ñu tegal la duubul lii ci digg néeg bi tegal la ci mat la boo xam ne épaisseur bi 60 centimètres la dafal la ci darab tegal la njaganaay tegal la climatiseur guddi ñu fay lampe bi mu lëndëm soo jógee da ngay làmbatu pour nga dem ci contact bi da ngay làmbatu néeg bi am na espace yaa ngi dox yaa ngi ak say bët waaye yaa ngi làmbatu te pourtant yaa ngi ci néeg bi 3 mètres la bàmmeel nag ñaata mètre la ban lal lañ la fay lalal ban mat la lañ la fay tegal ban darab lan la fay lalal ana ku la fay wéttali sa néeg sa soxna mu ngi sa wet mu ngi lay wéttali yenn saa yi sax nga am doom joo xam ne mu ngi ci biir néeg bi di leen wéttali ci biir lëndëm gi sax yenn saa yi ngeen di wax ngay wax muy tontu moom soxna si wala ngay wax doom ji tontu biir bàmmeel nag kan moo la fay wéttali bàmmeel daal lëndëm ba boo yëkkatee sa loxo bëgg a laal sa gémmiñ doo xam foo koy teg ndax loxo bi du jóg allahu akbar waaye lan mooy leeral bàmmeel ban làmp lan fa yàlla tegal ba sunu bàmmeel sunu bëggee mu leer lan lan fa yàlla tegal mooy assalaa mooy julli ku bëgg sa bàmmeel leer del julli ku bëgg sa bàmmeel buñ la suulee ba wane ginnaaw malaaka yi yaatal bàmmeel bi tegal la ab lamp a inni ala nafsika bi kasarati sujud sahaaba bi doon ànd ak yonent bi yonent bi bëgg yonent bi su yonent bi simmee dàll yi mun a ko cas teg ci dënnam bu yonent bi toogee mu daw toog ci ndeyjooram bu yonent bi doxee mu daw dem ci kanamam bu yonent bi toogee mu toog ci ginnaawam yonent bi xool ko ba ci yàgg ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla mu defal la ko waxal loo bëgg allahu akbar seetal loo bëgg rek nga wax ma ko ma ñaan yàlla yàlla defal la ko bu doon nun lan ko wax tey bu yonent bi dekkiwaatoon tey ci kaw suuf jàkkaarloo kenn ci ñun ne waxal loo bëgg yàlla ma ma ñaan yàlla da nga naan ko kat kat wala nga ne ko kër mamel ya wala léegi sax bàyyi nañ foofu da nga naan ko kër aéroport u jas allahu akbar foofu nga koy ñaan terrain R plus 2 4 5 loolu ngay ñaan saxaaba bi lan la wax yonent bi ko yonent bi waxee loolu mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna dama bëgg nii ma ànd ak yow ci àdduna ma ànd ak yow biir aljanna asaluka murafaqatuka fil janna yonent bi xool ko ba caag ne ko loolu de mënuma ko mënuma ko yonent bi wuute na ak waa Sénégal yonent bi wuute na ak waa Sénégal Sénégal moom kenn du fi wax dëgg xutba tabaski la ay nit jël di coppi di kole coppi di kole ne man dama doon saaga mag ñi di wax yu leen neex di saaga dugal ci internet bi dañuy sonal seen bopp xaj yi dañuy mbaw caravane bi di jàll ñu loolu delloowunu ginnaaw ay saaga ak ay xas xaj yi dañuy mbaw oto yi dañuy dem seen yoon xaj yi dañuy mbaw giléem yi di romb waaja ba mu nee yonent bi yonent bi mu nee waaji waxal loo bëgg mu ne ko ànd ak yow aljanna yonent bi ne ko mënuma ko mënuma laa dugal aljanna wax na ko doomam wax na ko fameem wax na ko tàntaam wax na ko ñëpp mënumaa dugal kenn aljanna ñun nag Sénégal am na ñuy dugalaate aljanna te doo doo julli doo woor doo def benn jaamu yàlla ñu dugal aljanna allahu akbar ibrahim li muy foor foor foor foor yàlla ne ibrahima xalilullah ibrahima mënut a dugal baayam aljanna alaysa kazalik wattaxaza allahu ibrahima xalilan ayna abaahu fi nnaar Moussa li muy takk daraja daraja mënul dugal qaaruuna biir janna nuux sayxul mursalin mënul dugal jabaram ak doomam aljanna sayduna muhammad mënul dugal baay taxam aljanna ñun mën nañu dugal ñëpp aljanna so weli allah so welaani allah a natat janna allahu akbar oɗo holmo wondi ha hol doole o dañi ha so weeli allah so wenani allah o naatan aljanna holmo holko o wondi allahu akbar waaji moom ban domba tànk la takk boobu neexee yàlla neexul yàlla day dugg aljanna kii ban garaat ban garaat la am lu muhammad mënul woon ndeysaan waa ji triste bi ko yonent bi waxee loolu ne ko mënuma laa dugal aljanna te waa ji nee na man damaa bëgg ànd ak yow aljanna yonent bi xool waa ji mu sëgg yonent bi teg loxoom ci mbaggam bi ne ko da ngaa bëgg a dugg aljanna ànd ak man mu ne ko waaw mu ne ko a inni ala nafsika bi kasaratil sujud kon del julli lu bari del julli de fu la julli fekk jógal julli al imaamu hasanul banna rahimahullah bi muy yar njabootam gi frère musulman yi def leen ne ci al wasaaya al ashara ndénkaane fukk yu mu leen jox premier bi mooy saa yoo déggee noddu jógal julli bàyyil dégg noo du toog di seetaan théâtre di seetaan film nekk ci stade di seet di di di di di ataaya toog sa wetu soxna toog sa wetu njaboot toog sa liggéey soo déggee julli nodd jógal yow la ñuy woo kii nodd ku muy woo yow mbokk yi bàmmeel dafa lëndëm buñ la wàccee sa kawlal diri la dugal la ci morgue bi sangala sangala jullee la yenu la ànd ak nit ñi ba buntu ba meel ñu wàqi ba mu xóot allah keroog ngay xam ne bàmmeel dafa lëndëm mu la dugalee ci biir ba delloo si suuf si ba nga dégg tànk yi di ñibbi yàlla delloo la soru nga dégg nit ñuy ñibbi keroog ngay xam ne bàmmeel moo lëndëm soo bëggee lu ko leeral nag sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu defal na la lumière bu ko leeral mooy assolaa julli bi ñu sàggane tey imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yonent bi nee na ku taxawal julli taxawal nga diine ku bàyyi julli màbb nga diine awalu ma yuhaasib bil abdu min amalihi yawma alqiyama moom la ñuy njëkk a seet yawma alqiyama yawma alqiyama bu ñu nee cëpp julli la ñuy njëkk a contrôlé nañ xoolaat sunuy julli nañ xoolaat ndax ñun ñu ngi julli inna salata tanha anil fahshai wal munkar julli day tere nit def lu bon lu tax tey ñuy julli ñun ñëpp ñu nekk ci lu bon kon nañ seetaat ndax julli nañ qays qays benn waay la woon mu nopp benn jigéen bu tudd layla munul gis layla bu rombee kër ñoom layla day taxaw di foon miir yi ñu ne ko lan la mu ne layla moo fi dëkk layla moo fi dëkk ndax bëgg gi mu ko bëgg mu tourné gis xaju layla mu ne tey foog ma gis layla mu topp xaj bi xaj bi dugg ak moom àll bi mu romb ci àll bi ay nit yuy ut tiyaaba daw dëkk bi dem dëkk ca àll ba di julli di naafila di woor mu rombi leen ñuy naafila mu dem ba ñëwaat gis layla wax ak lu muy wax ak moom bay ñibbisi mu romb ñooñ doon naafila gars yi ne ko yaa bon ne lan laa def ñu ne ko nga romb nu fii nun nuy julli nga topp naan da ngay wër layla mu ne leen julli leen julliwaat leen bu fekkoon ne da ngeen doon julli du ngeen ma gis man ba ma leen ba ma bëggee layla yéen gisuma leen romb naa leen gisuma leen yéen ngeen bëgg yàlla taxaw ci kanam di ma gis julliwaat leen julliwu leen ñun ñëpp dañoo war a julliwaat ñun ñëpp mbokk yi su ñuy wax dëgg dañoo war a julliwaat est-ce que noo ngi julli est-ce que noo ngi julli dëgg-dëgg imam ali radiallahu anhu wa arda su doon julli su jógee woon guerre jihaad ba ñu jam ko ba yaram bi naaj pour ñu faj ko gars yi dañ naan bàyyi leen ko ba julli jot bu ñu liqaamee ba mu ne allahu akbar gars yi song yaram bi di fomp jël ndox ak xorom di raxas ñawaat ba mu baax bu ne asalaamualeykum mu gis band yeeg sagar yi ñu takk ko mu ne xanaa da ngeen ma doon faj waaw allahu akbar parce que bu ne allahu akbar dootu fi nekkati yëpp yàlla la koy jox ñun daan dañ naan allahu akbar di régler ay problème xaaral ba ma pare julli rek tey non kii fo non xaaral rek non waaw imaam nag gaaw waay dama war a am ay quelques appels yeeg yu war a jóge États-Unis te julli gi dafa xaw a gudd quoi ñun suñu julli yëpp dañuy wax ak suñu bopp ba ba ñuy pare troisième lëndëm bu ñu topp te yàlla defal ñu ci kanamam lumière mooy almizan zulma wa sirajuhu la ilaha illa allah balance balance lëndëm la mbokk yi lëndëm la ci lëndëm yi waaye naka la ñuy def ba yàlla buy jël sunuy bagage di ko peese teg ko ci balance fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man xaffat mawazinu fa ummuhu haawiya naka la ñuy def ba lool di peese di balance yàlla def ko muy lëndëm yàlla subhanahu wa taala tegal ñu làmp bu tudd assiraj muy laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah buñ ko waxee yàlla génne ñu ci lëndëm yooyu aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokki julit yi jaww jee neexut fukk la woon waaye fii lañ koy yemale bu ñu jullee ba pare insha allah am na fi ay mbokk jullit yuy ñaan ndimbal noo ngi ñaan yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla yombalal nu lu nu mën a dimbali suñu bokk yooyu qumu ila salaatikum yarhamukum allah